jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nu yotti nañ leen am kontante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen nuñ koy defee saa su ne ñu ngi fii ci yëmbal seet si fi benn xale boo xamante ni dafa bëre le 21 décembre 2019 fee ci stade Jom Iba Mar ci journée Petit Production kooku mooy booy yëmbal mu bëri ci xeeru ngor numéro 2 tey ñu ñëw seetsi si ko depuis combat bi ba léegi xam nga mbëri moom bu ñu daanee dañuy noos lekk ginaar naan boisson yaa ma gën a xam di feete victoire am ba tey mënuñu ko gis mbokk yi tey ñu ñëw fii ci yëmbal seet si waat ko laaj ko nu mu dundee victoire am ak làmb ji keroog nu mu ko dundee boo yembal maa ngi lay siyaar. waaw ginnaaw baatu onze billahi mina seytaana rajim ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli ci yonent mu tedd bi di sant suñ ñaari waajur bu wér di sant suñ ñaari waajur bu wér di sant sama sëriñ Seydi Abou Bakar si yàlla na yàlla yokki leeram te taasu ci barkeem di wax ne jërëjëfe Ndoye Sy jërëjëf Ndoye Sy Ndoye Sy yàlla na fi yàgg te wér ak képp ku ko wax. Mhm. waaw maa ngi lay fay yaakaar naa le 21 depuis le 21 ba léegi yaakaar naa ñu ngi doog waat waaw xam nga rek pare combat dafa metti combat bi ñu ko doon waaj lu yàgg sax mun naa ne combat bi bi tabaski bi desee deux semaines la taxawoon. Mhm. ñu nekkoon ci kon yoon la ñu seet si am di jàmm yi mbokk yi dem demaat village. Mhm. nemee ko juwaat waa village waaw loolu rek ñu téye woon boobu ba léegi. bi ngay jël avance bi xamoon nga xeeru ngor numéro 2. waaw comme li ma doon wax rek laay waxaat ba tey xamu mbër moom da nga koy xam xamu mbër rek xamoon naa xeeru ngor ne champion la seetaan naa ay combat mu doon daanaan nag kullu fadil. Mm-hmm. waaw bi ma ko jëlee man xam naa ne combat bi du doon combat bu yomb. waaw waaye li ñuy wax rek làmb pour nga dem il faut nga jël lu metti pour dem. Mm-hmm. waaw nekkuñu fi pour jël benn mag wala dara dañuy jël xale yi nga xam ne tey suñu moroom lañ. Mm-hmm. ñoo toll ñoom génération. ñu mën a bëree moom xeeru ngor champion la bi ma koy jël xam naa ko bu baax. Mhm. keroog bi nga déplacé woo jóge fii yëmbal ñëw Iba Mar mbooloo bi bari bi la topp ba may ñëw di la fekk sa ci meekaay boo yëmbal bi ma gisoon ak boo yëmbal bii ma gisaat sa fedd waaw lu wér yaakaar naa boo yëmbal 2018 ak boo yëmbal 2019 bii ku xool boo yëmbal rek xam ne am na différence loolu dama ciy sante yàlla parce que tey dañu dëkk ci gox bi nga ñu fekk muy yëmbal goxu làmb la malgré amaguñu fu ñu yegg ci làmb waaye am nañ tey suñuy mag yoo xam ne def nañ dara ci làmb ñun nag loolu ñu def ñun dañu bëgg fi ñu yem ñoom ñu yóbbu fu raw làmb te xale yi wuy si nañ ñu ndax li may wax rek loolu noonu ndimbali suñu borom la mu doon tamit ay xale yu jàmbaar yoo xam ne dépp bi combat bi taxawee dañ cee faayet dañ cee liggéey lu metti boo yëmbal bu amee combat yaakaar naa yëmbal événement lay am waaw te yow loolu du lu ñuy wax boo ñëwee open press ba ñëwaat làmb ja di nga xam ne yëmbalkat am nañ yaakaar ci seen doom te yaakaar googu noonu du lu ñuy wax nag man boo yëmbal du lu may wax lu may jëf la bañ teg ci seen bët waaw. bi ngay bëre xeer ngor numéro 2 mooy sa ñaata komba waaw boobu yaakaar naa mooy sama treize combat su ma juumul xawma ma quatorze. parce que dix victoire laa am ak quatre défaites quatorze combat la waaw. kan moo la daan. Lassander. ak euh, Agogo. ak nongolo ak ngooñal su ma juumal waaw j'espère que la waaw ñoo ñoo ma daan tudd ñëpp ñu la daan ay champion waaw ay champion lañ parce que tey ñooñu bi ñuy bëreek ñoom malgré li ñuy wax rek doonoon nañ xale xëy na am na benn fugg bu ñu toppoon lépp luñ li ñu waroon a def ci làmb yooyu noonu dëgg-dëgg dafa des malgré bi dee ne def nañ ko waaye boobu jikkoy xale moo ñu jàppoon te xale tey màgg na waaw. xale màgg na nga wane ko ci sa diggante ak xeeru ngor numéro 2 avant sa open press da nga doon wax naan su ñëwee bu bëggee ñu xeex bu bëggee ñu bëre xeex bi gaa saxut waaye bëre bi bëre nga fa bëre boo xamante ni bëre bu rëy la mën nga maa expliquer noo bëree Xeeru Ngor numéro 2. waaw li may wax rek xam nga tey amateuru làmb yi duñ ay ngaaka ci làmb doon naa dégg commentaire yeeg yëpp dañuy jël bëre bi jox ko boo Yeumbeul jël xeex bi jox ko Xeeru Ngor. yaakaar naa def naa ay interview yu bëri ne Xeeru Ngor bu xeexee mu duma ko mu wàcc la du loo xam ne dañ koy wax pour bataille psychologique. déedéet dañ ko waxoon ak gëm-gëm waaye li ñuy wax rek làmb moom li ngay wax bokk ak lay xew. xëy na keroog ñëw nañ laal ci côté xeex bi mu xaw a dëgër ci ñun. kon ci bëre bi lañ war a mën a dem te bëre boobu ci lañ def mën naa wax ne arbitre dafa sifflé yaakaar naa moom mu tari man ma tari ñu léewtoo am benn distance mu dox jëm si sama kaw man ma reculer parce que man xam naa ne moom xeexkat la bagarreur la te man tamit lépp lu ma nit ñi waxoon mooy jege ko waaye tamit nit boo koy jege day fekk yow est-ce que tey ki ngay jege war nga ko jege wala waroo ko jege. Hmm. combat bi bopp laa ko bëree xel laa ko bëree arbitre sifflé na mu dox jëm ci man ma reculer reculer bi nag du question tapette wala dara. Hmm. ma reculer tuuti taxaw moom tamit mu taxaw ndax su ma taxee moom day taxaw du ñëwaat ñu lowtoo yaakaar naa ma xaw a cokkaas mel ni lu ko dóor te dóoru ma songu. ba jox naa ko sax may naa ko sax ci làmb ji loo xam ne bi ma ñëwee yaakaar naa am na ñu bëri ñoo xam ne sax dañ ma saaga ndax ci benn côté boo xoolee premier songo songo bi jox naa ko sax wet mu jàllax ma. Mm. parce que moom xam na ki muy bëreel moom moom ma doon bàyyi xel ci côté bëre. Mm. ndax foofu bu doon day bëre dina ma yegg foo xam ne peut-être du neex samay mbokk waaye boobu moom gëmul ne loolu noonu war na ci mën a daan boo yëmbal. Mm. si la ma jalaxee après ñu song ñu lëwtoowaat tuuti ma comme d'habitude rek ma cookaasaat jël ko. bi ma koy jël boo xoolee sama bopp dama ko bët man dama ko bëggoon a yenn mm-hmm. bi ma koy lii nag li may bëree yëpp tamit damay bëree ci suuf mm-hmm. ci lay caxabal mm-hmm. ñu bëri ñoo ngi am xel ñaar ci caxabal boobu waaye caxabal boobu tey mu ma caxabal ma tuur ko bu ma arbitre joxul victoire moom du arbitre moom lay jox victoire parce que ñun jàng nañ tuuti ci li CNG wax yaakaar naa cuisse boo tegee cuisse fes loolu mooy jéel la waaye ba tey sama zone fii nii moo tegu suuf ma tourné ko ba tey. bi ñu ñëwaatee tamit ñu songawaat c'est la même chose ma songaat ko comme. moment boobu arbitre bi dafa àtte. nit ñi daw dugg. ñu ànd ak yow. ñu ànd ak moom. ñu daw dugg moment boobu yow loo yëg. non lu ma yëg mooy man buñ ma joxul ndam kenn du ko jox ndam. parce que man biir na ma ne man man maa ko daan man. sama du question nag dañuy wax wala li ma ko def moo tax ku seetaan site yi ndax am na action yoo xam ne yow mi koy def sax yow mii rapporté sax dangay ngay tiit doo mën a sax commentaire action boobu parce que ni mu mel la ak action boobu ku xam boo yëmbal xam ne boo yëmbal lu raw loolu da koy def ci bëre. du benn yoon mën bëri naa mbappat du ñaari du benn yoon du ñaari yoon damay daan ba pare arbitre bi daw. Hmm. parce que du am fitu joxe jéel la ndax jéel bi ni muy gaawee ci ay bëtam. ñi ma àndal ñi mën nañ ma ma seede te ñi dëkk yëmbal tamit mën nañ ma seede daan naa mbër du benn yoon du ñaari yoon arbitre sañul joxe jéel ndax jéel bi ni muy gaay ku xam boo yëmbal laa wax waaw après bi arbitre sifflé ñëpp dugaat man gëm naa ne man maa daan arbitre woowaat ñu waaye ñun ay xale la. bu ñu arbitre bi bi mu leen woowaatee amaatoo beneen xel woowaat beneen pression wallaahi dama ne tey lu mu metti metti bi may dem man bi may génn yëmbal wallaahi yàlla rek a tax ma dama ne lu mu metti metti metti metti ndam li waa yëmbal parce que dañ ñoom deseelatuñ ma woon dara man maa leen deseeloon ci biir géew bi. yaakaar naa jël naa ay coups yoo xam ne coups yu metti la. waaye dama ko tenir yëguma sax man coups yi li ma gëm mooy man ndam laa war a am te looloo ma mayaat gëm-gëm bi bi ma arbitre woowee ma ñëwaat. ñu bëriwaat ma songaat ko boo xoolee song yëpp dama koy dégg sax mu naan mooy attaqué waaye boo xoolee song yi ci làmb ji yëpp boo yëmba la ko def. bëri bi yëpp boo yëmbal moo bëri bëri bi moom leen rek la doon def di jam ay coup rek te li ñuy wax bëri doo a dëgg la waaye nit ñi li ñuy gën a soxla sax bëri bi la. te bëri bi yëpp yaakaar naa ku bëgg keroog ci bëre boo yëmbal moo ko fa def ndax image yaa ngi fi te image yi du réer. mu ñëwaat ma songaat ko yaakaar bi muy songee moom njoowaanu na sax sama kaw jël poids yëpp sëf ko te dégg naa ko ci benn interview mu ne bi mu jàppanteeg boo yëmbal boo yëmbal amul doole. nee na amul doole nee na nga woyof comme xobu garab. xam nga tey man lu ma gëm imagine toi bëre bi yaakaar naa six minutes la bu ma oyofoon kon daf may taxañ sànni te jàppante ne ñaari yoon moom première jàppante bi boo xoolee image bi moo daw sax jàppante bi. kon bu ma oyofoon bu ñu mbër xam nga banaa ngay xam ne diis na ak diisul rek ngeen laalante. moom xam na lim fekk loolu nag du ma ci du ma ko belam ñun ay xale lañ dañuy liggéey bu ñu amee doole ñun xam nañ bu ñu amul doole xam nañ bi ñu jàppante waatee yegg na ma foo xam ne man bu ma amul woon doole daf may daan. Hmm. daf may tënk ndax daf ma boq waaye boobu li may téye li ma entraîné man moo ma téye foofu. li muy bëre yëpp moom mu ngi bëre di jaay doole da doon bëre ngir jaay doole man may bëre ak moom xel yaakaar naa jël bi ma ko daan looloo tax sax mu yéem ñu bëri ndax li muy def yëpp moom moo ngi jaay doole man nag maa ngi xool nu ma ko daanee boobu moom sama kaw bokk ma di ma jéem a mbaar ndax moom loolay bëre moom da ngay ñëw mu suru xol la mbaar la pour nga dugg ci biir ronu la mm-hmm. parce que moom njool la saa yoo leen jàpp merci roloosam lay bëre mm-hmm. waaye man boobu lépp lépp lépp la man xam naa ne combat bi ci suuf lay jeexee mm-hmm. xeeru ngor tànk loolu laal yaay borom te ci loolu laa ko daane. Hmm. ma plaqué ko plaqué suuf. moom dafa mel ni dalaa sànni wéyale la ngay dem waaw mboot ma tourné waat te boo xoolee ba tey. Hmm. foofu balaa ngay xam ne am naa doole wala axuma doole. Hmm. sama benn tànk mu ngi ci saako yi. man gaynde laa ci biir géew du ma mbër yoo xam ne damay reculer wala di daw xalaatuma ko ki bëre ki bëre ba baaraamam damm ci biir bëre mu bëre ba daan. kooku yaakaar naa du yàqu làmb loolu lañ bëre ma daan ko te loolu moo ma may tey jël boobu su ma dawoon génn saako yaakaar naa tey duma am loolu. Hmm. waaw looloo ma may jël boobu. li ma jaaxal mooy façon ni mu la déclenché. nga dem ba ma yegg yaakaar ni yaa ngi yegg ter nga suli wax la ci suuf. Hmm. loolu daf maa yéem ban bëre la ban façon bëre la. waaw xam nga ñun li ñuy wax rek mënuñu bëre de waaye bëre nu mu ñëwee rek yàlla mën na dogal ñun ñu génn ci. Hmm. parce que dañu doon ay tuut tàng teel a bëgg làmb di topp sama grand. di ko toogal ci Mikaay Baye yaakaar naa ku dëkk yëmbal fii rek xam nga ko maa ngi koy nuyoo passage yaakaar di ko toogal ci di topp ci ginnaawam xama jaar ci samay grand yoo xam ne tey ku jaar ñoom boo tuuti ci bëre sax ñu laaj la ko man tey mën naa daan mbër sax boo ma laajee noo ko daanee man dama naa la mu xaw ma ko parce que ci biir bëre la rek ñun bëre nu mu ñëwee rek mën nañ ci def loo xam ne peut-être nit ñi lay jaaxal waaye ñun du ñu jaaxal parce que dañ naan ñun nu mu ñëwee rek mën nañ ko defee noonu ñu bëri yaakaaroon nañ ne foofu damay ñàkk ñu bëri boo leen tegaloon foofu ñu jeekuwoo foofu seen mbër dañ naan jeex na waaye boobu man maa ngi bëri man fekk toogu ma. wala tëdduma daanuwuma. drapeau baa ngi nii nee na drapeau am la ko ko nu mu gën a gaawee. <laughs> waaw xam nga li may wax nee naa ndeysaan ñun dañu nekk ci benn sport boo xam ne ku ñàkk rek boo mu saas boo gëmul yàlla tuuti da ngay ñànki maa ngi koy nuyu au passage démb daje nañ esaat mu def fa geste bu naas nuyu ma man tamit ma fay ko dégg naa interview am yëpp waaye du ma ko jàppee. dama koy jàppee ni nit la koo xam ne tey victoire boobu da koo jaraloon. moom combat boobu da koo jaraloon ndax li tax ma ne da koo jaraloon imagine toi promoteur bi tëgg combat bi daanaka bu ko faralul faralul boo yëmbal. ñu jël drapeau bi tuddee ko koo xam ne nijaayam la. mu dëkku Ngor. yaakaar naa ay ndaw rabin ñëw ñëpp ñëw di ko di ko puukeroo. tey nga ñëw xale bu ndaw toroxal la ci say kanamu askan. toroxal la ci sa kanamu dëkk. daan la yóbbu drapeau bi doo mën a accepte loolu dama koy comprendre. di ko wax loolu ko daloon ñun mës nañu dal te dañ ko muñoon. waaw nu muñ. neena na na recours de CNG lay xaar ñu jox ko victoire am. man de li ma nar a metti rek sam booy dañoo defoon un 0 waaye li ma nar a metti moom nar naa daanuwaat sax. Hmm. waaw nu muy daanuwaatee ci la. demaatee CNG après moom deux deux défaites lay mujjee am. daan naa ko ci géew bi mu demaat instant bi wax naa ko nee naa ko bëri nga ak boo yëmbal ba di bëri këyit te boo yëmbal pare na ci loolu. moom ma nga waat di bëri kayit. kayit yi lay bëree lay bëri si bi dee jiil boo yëmbal moo ko def boo yëmbal ko daan loolu kenn werenteetu ko boo yëmbal moo tax toog ci kaw xeeru ngoor moom jamono jii ma ngay bëri kayit man instant bi maa ngi maa ngi maa ngi entraîné psychologiquement pour sama mental maa ngi pare physiquement pour beneen adversaire waaye moom mu sama ginnaaw yaakaar naa la 21 tey ñëwee la la la la 30 waaw moom nag ba tey jii làmb ji jeexagul ci moom ndeysaan maa ko yërëm. <laughs> boo yëbbal yaa koy saani xeer de. non du saani xeer li ma wax moo am imagine toi nga bëri la 21 fu mu toll nii moom su ma juumul moo ngi moo ngi dajale ay séeram di xaar pour rang-rang bi pour que recours génn boo yëmbal moom. incha allah man maa ngi bëgg samay fans maa ngi nekk ci leneen nekk ci sama enjoy di di dund leneen. barki alxuraan di pare samay taani béer ak samay cant moom nag ma ngay wàcc ci kayit yi dama ko yoroon nag. seen picc yëmbal li ma jaaxal. mooy bi nga daanee xeeru ngor numéro 2. jooy bi. ko daan nangu woo place ngay jooy. mais que gaañu nga gaañu bu métti. waaw xam nga tey li tax mooy jooy mbégte bi ma amoon. maak yàlla rek ko xam. parce que combat bi nekkuloon ne dama koy bëre ngir boo yëmbal. sama premier grand combat la ñu doon ay xale. entourage boo yëmbal ay xale ñu ci ëpp gis nga ñi may àndal. te lu ëpp dañ naan làmb dafa baaxoo ngay ànd ak mag malgré nag ñoo ngi ànd ak ay mag ndax ku ci mel ne Père Serigne Mbaye su ma limee damay juum Babacar Fall Babacar Dia Alsaan Saw ñooñu samay mag lañ dañ may xelal saa su ne waaye tey bu ñu ñëwee rek premier grand combat boo yëmbal yaakaar naa ci psychologiquement dañ ko war a teg ci xam-xam te boo xoolee keroog rek boo yëmbal ni mu bëree ak niñ ko em ngembee da ngay xam ne kii nii am na lu nekk ci ginnaawam man ñooñu laa doon bëreel ndax tey bu ma woon ci combat boobu rek dinañ ne na dem ànd ak ay mag na def nii làmb mag a koy def nangam sangam man ñoo ñu laa doon bëreel ak waaye yëmbal tey dañ ma desulul tul woon dara ci komba boobu maa ngi koy dégg mu ne moom moo feesal stade image yi ñu ngi ci télé yi yaakaar naa keroog la boo yëmbal indi amul benn mbër bu ko fa indi te yi tamit mën nañu seede li ma ko jaayaa ci ay ticket du ma toog fii di ko wax waaye li ma ko jaayaa ci ay ticket gëw mu ne benn mbër jaayal na ko ay ticket boo yëmbal da doon maye ticket yi pour nit ñi dem stade parce que Modou Mbène xam nga ku ci mel ne sama grand Moussa Guissé Baara Gaye jàpp ci ñu jënd ay bologu ticket yu bëri Modou Mbène Diop li ma jëndal ci bologu ticket kenn xamul lan la Moussa Guissé ñëw ne ko dannu ma Baara Gaye ñëw jàpp ci ak samay autorité waa diaspora bi li ñu ma jëndal ci bolog moo tax man xamoon naa ne day xaar ndax doon nañ ñaan moom chaque jour defet naan ko ëpp mbooloo ku gën a entraîné yàlla na la yàlla may ndam yàlla wuyu si ko ci ñaanam rek ndax loolu yëpp man maa ko gënoon a def. léegi daan nga xeer ngor numéro 2 foo jëm. waaw xam nga tey ñun ay mbër lañ xëy na tey buñ nee duñu laaj xëy na dinañ ne dañoo ragal waaye ku xam boo yëmbal sax baaxoowul di tudd mbër ne nañ ko jox diw ndax man dama naan ku ma làmb booleel pare naa pour bëreeg moom waaye tamit ku xippi say bët boo yëmbal yàggul ci làmb ji de waaye moo ciy bëgg a yàgg te dafa jot laa la wax de samay grand may ma sens. waaw. yan grand ñoo lay may sens. benn ci mbay guy gi moo ko teree neex. jàngoro yëpp dañoo dajaloo nga jël siti siti du wér mbay guy gi menn mënul bëri amul xam-xam moo gën a niil ci mbari te dama ko bëgg a corriger. mbay guy gi day commerçant yi ne Petersen yëpp moom la ñuy jàppale. déggoo li ma la wax moom fa mu nekk sax di fa jaayee laa la wax am na ñoo xam ne chaque jour moo ngeek ñoom man la ñuy jàppale. Ablaye Lay. déggoo li ma la wax Moulay Lay. ma ne Ousseynou Lay. <laughs> gaa yooyu moom la ñuy jàppale kooku nee naa la làmb bu dul woon wax. du ci am dara wax rek lay def. moo gën a niil ci mbëri mbay guy bu ñëwee ma jàngal ko bari ñeme nga xeex ak mbay guy. xam tey bu ma nee mbay guy gi rek pare naa pour disque yëpp amul leen lu ma koy ragale mbay guy gi laa la wax de bu ñëwee man boo yëmbal ma jàngal ko bëre. mais sëñ Bass mbay guy gi diis na trop trop trop mais boo yëmbal nag wax dëgg wolof nee na mhm. nit ki moom bu uude nu mu la gisee rek noonu la lay awalee. mbaa du li nga daan xeeru ngor bërki démb moo tax. ndeysaan gàkku doo ku ko daan. yaakaar naa doo daan xeeru ngor di tiitaru. dem ay làmb tournoi. Mm-hmm. daan ay ponkal yaakaar naa du daan xeeru ngor mooy tax may défilé wala naan daan naa xeeru ngor war naa mën a daan ñëpp. Mm-hmm. maak xeeru ngor ndeysaan du woon làmb. mais maa ngi dégg sa yeneen combat yoo xamante ni ñu ngi koy dox ci suuf mais ñooñu kon xanaa dañuy mujjee xaar. ñan la. Ah, dégg naa yeneen de déedéet wala wala benn. Ah, am na am na ku ma dégg de benn ki daan wax ragal du jéggi raay déggoon naa ñuy ñuy wax seen diggante. kan Bathie Seras. Ah, yaa ko <laughs> waaw xam nga man li may wax rek. ndeysaan man du ma ne kenn téyel leen ma xale yi ma duma mag ñi. man dama naan téyel leen ma mag ñi ma duma xale yi. man loolu laa gëm. man su ma bëree mag rek damaa sës. samay moroomu xale ñoo ma jëlul. Hmm. laamu man laamu jànk laa bëgg. xam nga lu ma laaj mbay guy hmm. dama ko dégg chaque jour rek dafay wax day nekk ci média bi di wax boo ko xoolee rek da nga naan kii roi de arènes la te dama ko bëgg a corriger waxam làmmiñam laa bëgg a tëj man. daa am gis ci moom. dama gis waaye du benn défaut ay défaut laa gis ci moom dama koy corriger ci ay secondes daan ko jili bul kenn dul daan mbër. yow di nga ma seeti mbay guy. lu ma la wax waxkat la nag. Hmm. xam naa boo ko seeti woon mu wax ba wër la. mbëru waxkat la de. <laughs> bu ñëwee ma duma ko daan ko. yi ba léegi yaa ngi déggoo ak waaw am na ñu may woo. Mm-hmm. yaakaar naa li may wax man dañ ma concentré woo ci entrement mm-hmm. li ma war a nekk mena euh, sama ménagère Matar Ndiaye mu ngi ci ak sama gannaaw ñoom ndooy sama gaay mm-hmm. ñoom ñu ngi ci man ci entraîné bi laa gën a nekk li tax ma cité la mbër man dafa am fu mu bëgg a jëm. te dafa am loo xam ne dama ko war a defal waa yëmbal ndax dañ ko soxla ci man. te dama leen ko war a defal teg man gëm naa ne ñooñu dong mooy tax man li ma bëgg a def ma defal leen ko. lan nga bëgg defal waa Yëmbal. roi des arènes incha allahu rabi laa fi bëgg a indi. loolu mooy sama gëm sa gëm-gëm te mooy sama objectif yaakaar naa man ku xam boo yëmbal doo ko xam ci daray caaxaan. te loolu boo gisee ma ma ma di ko def defuma ko ngir sama bopp dëgg la bi dee mu ngi ci tamit dama koy def ngir waa yëmbal ndax damaa bëgg ñu ñu yëmbal dama bëgg ñu respecté leen margale respecté nañ leen waaye dama bëgg ñu gën leen respecté fu ñu dem rek doomu yëmbal foo mënti dem ngay tiitaroo ne man yëmbal laa ci loolu laay dox ci loolu laay wax dama bëgg ñu gën a respecté waa yëmbal xam ne fii nii ay jàmbaar fàq tëdd ñoo fi nekk sëñ Bass dégg nga li mu wax borom bitug mbagg boo gis boo xaree bi xol bi magasin nga ciy fekk nee na lii la soxla couronne roi des arènes bi waaye ma nga parcelle de xaw ma nan ngay def boo yëmbal ba jot ci couronne boobu waaw kooku ko jël dañ koy ñaanal yàlla rek mu yàgg ci yaa naa la te dafa am fu mu jaar ba doon ko te foofu mu jaar man xam naa roi des arènes lan moo koy maye te loolu du luñ may wax man maa ngi ci ndox foo fekk boo yëmbal dund lu dul làmb man làmb rek laay dund dund ma leneen. ci làmb ji boo yëmbal génération bi nga gis nii yëpp ci kaw ba ci suuf kan nga jàpp ni moo dàq bëri ci mbëri waaw man dafa am sax. xamante ni boo gisee mu bëre rek ndeysaan sa xol day sedd da nga gis sa bopp. man mën naa wax ne mbëri ndaw yi tey boo doon cité mbëri fi dàq bëri ñu ngi fi cité dina fi bëri. Mm-hmm. parce que mën naa wax ne léegi xale yi ñëpp mën bëri. Mm-hmm. man loolu laay wax. Mm-hmm. ponkal yi rek ñooy buuxante waaye booyu ndaw yi. ñëpp mën bëre man man tey soo ma doon wax du ma ne diw la wala diw la. waaw ndax man gisuma loolu man. ci kaw. ci kaw comme mbëri mage ñi nga xamante <laughs> mbëri mag yaakaar naa de ñëpp nangul nañ ne Balla Gaye hmm. le maire champion kul fadilin la hmm. waaw kooku moom loolu xam naa ko ci moom ci lanam bëreem fitam mun jom ja hmm. Balla Gaye yàlla na ko yàlla lafal cat daal mbër kul fadilin la mbër la de jàmbaar la te wallaahi boo xoolee ay combat am rek xam ne kii vrai la te man damay bëgg loolu ci mbër. waaw jàmbaar dëgg dëgg boo koy wër rek jàppal Balla Gaye de. am na sa combat boo mës a rek gis jëmmi Balla Gaye ci yow. waaw man li may wax chaque jour yaakaar naa école de Double Less laa nekkoon di nekk ak saakees kon am na lu mu def ci man te boo nee saakees na Balla Gaye kon am na loo xam ne nekk na ci Balla Gaye mu ngi ci boo yëmbal loolu buñ ko waxul sax moo ngi ci. non fit gi rek benn rek man fit gi rek doy na ndax fit mooy mbër. am doole te amoo fit da ngay xaar fit boo ko amee rek man pour man loo bëgg ci laa mën nga ko am te fit googu rek moo ngeen man. Mhm. boo yëmbal ñu ngi lay jëfal di la bàyyi nga tàggoo ñu yeewee bu ëllëg. waaw di leen sant yéen tamit wax dëgg yàlla amuñu seen fay. ndax ngeen def déplacement ñëw ba yëmbal seet si benn xale amuñu seen fay ñu ngi ñaan yàlla seen site bi xam nga comme ni ngeen ko waxee wasaare fépp mu doon tele partout dans le monde ñëpp di ko suivre te incha allah yéen a ngi ci yoon bi gars yi yëpp nee nañ fii lay xoyom xoyomee mburu bi fii lay tàngee xama di sant nag ñi nga xam ne tey dañoo sonnoon ci combat bi sama booy yi su ma nee sama booy yi rek damay jël lépp jox ko waa jaay pere gi ñoom ñooy lépp yi boo yëmbal waa def bës yi boo yëmbal yi xam nga waa boursois yu boo yëmbal yi waa Paris bool bi xam nga les super filles de boo yëmbal groupe xel na dal rawatina nag samay grand yoo xam ne dañ cee jàpp ku ci mel ne Baye Sora maam Cheikh Ndiaga Ndiaye. xama nga ak sama benn grand El Hadj ak sama grand Ousmane ak ki nga xam ne tey mooy nekk ba Gàmbi da cee jàpp Omar Wade mooy ma ginaar yu bëri ak bu ndaw. wallahi rogu maay lépp ñoom ñoo ko des bu ndaw ak Omar Wade aw ma seen fay grand Assane Gueye depuis Italie moom tamit jàpp na ci bu baax a baax a baax a baax a baax di sant nag waa yëmbal aw ma seen fay su ma nee waa yëmbal rek yaakaar naa su ma nee Modou benn Mm. wax naa Moussa Guissé prési moom tamit maa ngi koy sant bu baax Malal Sakho fils de Doubales mm. jàpp na ci xama mm. Habib Ndiaye Saliou Gueye depuis Italie Amadou Gueye sama mag suñu waa kër moom mention spéciale sama benn soxna Mousli Gueye yaakaar naa daf may jàppale ci fànn bépp ak sama boy yi xama ñoom Osil Linzo Matar Bambasi xama waaw bu ma limee rek yaa bu ma limee rek mooy loolu du ma matal te Serigne Mbaye kenn du moom Babacar Fall kenn du moom Babacar Diak kenn du moom Alsaan Saw kenn demul mu des xam nga Paul sama grand kooku moom mention spéciale sama waa dëkk nag waa Koba Ngoy Sambadia faajal Bagana Wéri Ngara Zoual mbuur xama nga ñëpp maa ngi leen di sant waa Fuuta Golere xam nga maa ngi leen di sant bu baax. yëpp dem nga fa ci kom ay yow waa waa waa dem naa dem ba Simal. xama sama dëkk nangal ma mbuur baabu naar moom sam père la jaay pe rek billaahi su ma ko amul woon mën naa ne dama koy uti di sant ñëpp képp ku jàppale boo yëmbal rek boo yëmbal sant na la rawatina nag waa yëmbal xama di féliciter tamit suñu grand Alioune Seye junior mu jige démb ci victoire ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ndam loolu gën a sax ak mbëru yëmbal yëpp ñoom garga gaa yëpp daal képp ku jël drapeau yëmbal rek di ko faayatal foo mënti dem yàlla nga am ndam loolu laa lay ñaanal incha allah. ndeysaan dégg nga boo yëmbal li nga xamante ne loolu la wax sëñ Bass mbokk yi ñu leen di santaat bu baax a baax a baax te di leen gërëm tey rafetlu ànd bi ngu rafet bi ngeen xamante ni ànd ngeen ko ak wasaare làmb mbokk yi seen mbégte rek mooy suñu bànneex ay xale lañ te dañuy foo ni ko sëñ bas waxee te dañuy foo di ànd ak yéen di foo di ànd xale yi di foo wasaare làmb xàmmewul mbër mu mag ak mbër mu ndaw képp ku am licence incha allah doon mbër dinañ dox suñu tànk ak suñu caméra ak suñu micro bi ñëw ba sa kër seet si la ñu waxtaan ci làmb jaa ngeen jëf ñu leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb jaajëf mbër. yàgg na jaajëfatee.